de l'actualité actuellement ci noonu doon nañ ci euh, ñu ngi ci àndal ak euh, l'ancien premier ministre kii di euh, monsieur Abdoul Mbaye ak président wu ACT alors damay bàyyi très rapidement en 30 secondes euh, professeur terminé li mu doon wax laata ñuy dugg ci gestion wu Covid 19. waaw merci Néné Et je voulais seulement rek avant de terminer rendre hommage à un professeur de philosophie parce que li ñuy wax ci affaire état yëpp. mënoon nañ fi Max mënoon nañ fi citer Max Weber mën nañ fi façon sociologue bu ne mais il est temps quand même que ñun ñu bañ a mel ni suñu état yi di wóolu ay tubaab ak ay naar rek mais di wóolu africain yi ce monsieur là il s'appelle du Diop il office au lycée de Bayar il a écrit un texte ci affaire u événement professeur yi tuddee ko entre déraison et orgueil un état en de caractère Euh, Pas Matar. Mm -hmm. Il faut lire cet article. Absolument. Monsieur le Premier ministre, je vous l'enverrai. Merci. Merci à toi, professeur. Alors, ñu dugg ci gestion wu Covid-19 euh, gis nañ ko. bi ñu noté suñu premier cas lié au Covid-19 voilà Covid-19 maintenant dañoo gis ne que président de la République à l'issue de ça dafa woote woon pour ñu def benn force manko pour xeex lii di euh, Covid-19 ñu gis ne que yow euh, nanguwoo woon peut-être euh, dem répondre lii di appel président lan lañ ci mën a jàpp ak lan moo tax waaw gis nga Sénégal dafa am loo xam ne li dañ ko fi tàmm mooy politique ñu teg ko ci kanam yi lu ne Covid 19 nag jàngoro la bu doy waar problème mu santé la problème mu feebar la problème mu bakken la ma ragal politique gaaw ci rax te teel ko gisit bi nga xam ne bii gis naa muy oote palais euh, palais de la république. man ci sama bopp dama toog sama kër di seetaan télé ñu ne après demain talaata la woon yaakaar naa waaw talaata ñu ne alxamis bu neexee yàlla président de la république dina recevoir Abdoul Mbaye a politique ngay noonu ndax ci yoon bu fekkee ne am nga ko bëgg a recevoir da koy oolu jox ko objet ndax mën ñu gisee nga ñu seet donc dañ la convoqué informé wu ñu la informé wu ñu ma waaye ba tey bi ma gisee ne mu ngi oote ndax bëgg ku ko xelal eh, ay jéego yoo xam ne war na ko dox ci mbir mi ci ëllëg sa mercredi matin àllarba ci suba si ma bind leetar muy leetar bu jëkk bataaxal bi jëkk bi mu jot jóge ci man bind naa ko ci juróom da xelal lay ut ma di ko ci xelal ndax man dam efficacité laa jàng waaye ñëw toog fukki minute euh, fukki ak juróom waxtaan demte nii dem sa yoon <laughs> loolu ci euh, man pour man caaxaan la woon waaye li ci doon njort ñu gis ko ci ndax jëkk na décision yoo xam ne ci dëgg naa ci ndax dama jëkk boobu du bataaxal bi ma ko yónni moom ko bi ci Facebook Twitter ne nañu gaaw ñu gaaw def confinement ndax loolu dong moo mën a tax mbas mi du law te ñi ko def maanaam Tunisie ñi ko teel a def 17 mars la door tey Tunisie juróom-ñetti fànn ngi nii amuñu benn cas mu xaw a yéex tuuti waaye mu daal di ko def ma daal di tàccu bind ko nag maa ngi koy félicité ñuy dox loolu mu am itam loo xam ne wax na ko ba ñëpp dégg ko mu jëm ci ndimbal bu nar jëm ci askan wi gën a sonn gën a ñàkk dox ci li war a jëm ci entreprise yi et cetera et cetera loolu yëpp ñu koy rafetlu bokkoon na itam ci li nga xam ne nii euh, bokk euh, nekkoon na ca bataaxal yi ñu ñu ko yónni xëy na mu am foo xam ne tiitoon naa ci tuuti mooy communication bi ndax dëgg la télévision yaa ngi génnee seeni i vigilant ak ak li yeneen waaye amoon na solo amoon na solo rajo communautaire bu nekk fu ne ñu iti ji ñoo xam ne mbooloo dégg na leen ba ca jël sax ne na Aïcha ndegam ñu ngi ci Ndumbelaan Ndumbelaan c'est une émission suivie moom itam mu bokk ci spot yi ñu fay spot yi ñu ko jaarale fu ne fu ne fu ne ba ku ne xam ne feebar bi mbas mi lenn rek moo ñu ci mën a aar muy fagaru du leneen geste barrière ñu dugg ci mbir mi am na yoo xam ne xëy na bu ci ci biir waxtaan bi lañ ci dellusi waaye li ma ci jàpp tey mooy Euh, politique indi na ñu dellu ginnaaw te mbir mi demagul. Mhm. mbir mi nekkul sax ci mbas mi nekkul sax di wàññeeku ndax boo seetee statistique bi kenn mënul wax ne jàll nañu pic bi. Mhm. ndax pic mooy àgg nga léegi mi ngi wàññeeku. Mhm. ña nga des ca kaw. tey ñu ngi si 10 pour cent donc foofu. échec am nafa te échec bi du politicien moo koy politique moo koy wax Japon ci boppam jàpp na ne Sénégal bokk na ci fukki réew juróom-ñett yi nga xam ne nee na ñi ñoom moytu leen euh, war fa dem mhm. ndax c'est pas sous contrôle looloo am c'est pas sous contrôle c'est pas sous contrôle mhm. sur le plan mhm. sanitaire Euh, même avec taux d' assouplissement euh, euh, par rapport ak mesure d' assouplissement yu ñu jël ak yooyu yëpp ba tey jàpp nañu. c' est pas sous contrôle bi ñëw na ndax impératif politique. impératif politique ndax itam li ñu waroon a def dëgg dëgg dëgg ci information bu doy ndax nag itam doo ko téye rek ci këram deux mois trois mois te Sénégal képp ku fi ku fi quatre vingt quinze pour cent Euh, ci ci ci ci. boo jëlee fukki nit ñeent yi bés ak bés la ñuy la ñuy am. Mhm. lu lu leen di dundal tout le monde est journalier. waaye boo ba tey nit yi si seen. ah mais ndimbal bi nag. c'est pas possible. Mansour nee na ndimbal bi sur 556 communes 136 jot na see jot. ñu teeloon a wax ne na ngeen gaaw ci séddale. l'aide alimentaire d'urgence Front de résistance nationale bind. ne ay marché. duggal ci ay oto bi yëpp loolu yëpp day yéex na ngeen taamu cash transfert. comme Côte d'Ivoire mu def. par exemple gaaw ku ne xam li nga soxla. absolument nga jënd nga jënd ko ci. le subventionné. subvention euh, fële loolu loolu noonu lañ ko defee Côte d'Ivoire ça a marché loolu itam boo ko seetee ba seet di nga ci gis gestion politique na jaar ci suñu maire noonu ñoom ñu mën a joxe. te ñu ngi koy topp ci ci dëkk yi ci communes yi waaye am na ñoo xam ne ñu ngi may wax ne foofu ñu ne waa APR ñoo fa am. donc li ñu doon ragal muy politisation wu euh, aide alimentaire d'urgence bi euh, ñu ngi koy ragal donc da nga jàpp ne que loolu effectivement c'est effectif am na. lan ci la nga ne. politisation wu ah! aide alimentaire distribution wu aide alimentaire. du fu nekk nag du fu nekk waaye man de dégg naa ko ci ci ay euh, dans le département de Kolda euh, de dégg naa ko fa. Euh, mbir mi yéex na nit yi soxla nañ ko lool taamu nañu yoon boo xam ne doonu toon bi gën ndax rek ni ma ko jàppee man war a jiital gestion politique kon aspect sanitaire bi moom mën nañu jàpp nee euh, na si vous permettez ma ma bëggoon a laaj benn question parce que li nga wax ni nga ne fi mu toll nii c'est pas c'est pas sous contrôle euh, ban jàngat nga ci am ci wàllu stratégie ba ban stratégie lañ waroon tëral ak ensuite yaa ngi wax lu jëm ci wàllu communication euh, ñun sénégalais lu ñu remarqué une communication institutionnelle nga xam ni soit ministre bi mooy ñëw wala madame Xemes mooy ñëw ñu dem ba sénégalais yu bëri sax jàpp gëmuñ ñi sax ni feebar bi am na tey. Euh, bu fekkoon yow yaa nekkoon ci aux manettes ban stratégie nga jàppoon nii moo gën donte wuy woo appel du chef de l'État am na sa xalaat yoo xam ni bindoon nga ko est-ce que mën nga si ñëwaat jàpp ni comme situation bi n'est pas sous euh, ban stratégie moo gënoon. Euh, stratégie bu door ci ci fi fi ñu toll nii. <laughs> communication toujours ah amul leneen amul leneen na ngeen xam ne mbas mi demuloo na ngeen xam ne mu ngi fi ba noppi nag. ndegem am na ñoo xam ne dañuy waxte te dañu leen gëm ñu uti ñoo xam ne. bu ñu waxee ñu gëm des personnes crédibles. c'est aussi simple que ça. aussi simple xam ne boo defee ci télévision dina am ñu mën a lire tubaab bi dina am ñu ko mënut a lire. nous avons ah, dañu am ay relais traditionnels yoo xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen. nañu wax na nañu amu ah, ci koo xam ne du du du du du du du nangu ànd ci li ci des nag volet économique ak yooyu man ci dëgg-dëgg mënuma ci sori ndax transparence amu ci dinañ am mille milliards fan la mille milliards yi jëm ñu ngi séddale loolu fan la dem naka la ana ku ko jot transparence amu ci maa ngi dégg barko Dembo Ndiaye ñu naan euh, yaakaar naa ñaari conseil de ministre ca gannaaw ndax oote woon naa itam ne attention koomu Sénégal dina wàññeeku bu baax a baax trois pour cent yooyu ñu déggoon du am loolu du wax sax loolu vraiment amul amul benn amul benn maana amoon na solo jiital ci lu ne mbéy mi faydaay ko lool ndax looloo mën indi ca kaw ga ñu am lu ñu dundee am itam lu ñu mën a jaay ci ci dëkk yi ndax foofu sax boo ko seetee euh, euh, société kenn ONG Enabel bu bu bu bu bu Belge bu Belgique moomoo xalaat loolu ci ci ay département dix huit dix huit communes astafurlah yoo xam ne dañu amoon euh, soble soble boobu du toon jaay ñu jënd ko di ko distribuer mais loolu war nañ ci jublu itam ci li nar a ñëw yi jiital mbéy bu jëm ci lépp luy looy lekk céréales ceeb euh, dugub euh, mboq et cetera et cetera loolu jaar ca euh, mbéy ma waaye nee nañu 60 milliards mais 60 milliards. nañu <laughs> kenn déggu fi conseil interministériel. dama leen waxoon mois d' avril bu mu romb mukk te conseil interministériel bu agriculture taxawul. dégguñu ci dara su dul rek 60 milliards joxe nañ ko ci mbéy mi. ana jiw ana engrais kan lañ ko jox naka lañ ko joxe lan la ñu jiital ban stratégie. xale yi nga xam ne jot nañu jóge dakaar dem ca ca ca ca àll ba ndax boole nañ leen ci loolu sax waxoon naa ne nañ leen ci boole ñu ñu xam li li njëriñ bi nekk ci ci ci mbéy mi oote naa itam toujours ci wàllum stratégie agriculture ak tourisme tourisme bi nañu xam ne deux mille vingt deux mille vingt deux mille vingt deux balaa tourisme di dellu si fii jóge bitim réew dina jafe lool kon war nañu jublu ndax tourisme yi bari na am na tourisme intérieur ñi nga xam ne ñi ñoo doon faral di génn bitim réew di dem ay euh, ba ba ca même la am na ñoo xam ne tamoon nañu di dem ay umrak yooyu duñ ko mën aleel boobu nañ ko duggal ci tourisme d'intérieur dundal hôtel yi ñu bañ a dàq ñi ñi cay liggéey et cetera et cetera man de loolu laa gis